mais vaar mooy vaar bi ba tey lu ñëpp di ñëpp di laajte <laughs> moom moom la moom laa moom laa parce que évidemment dafa y a des y a des détails yoo xam ne dafa daf may échappé mm-hmm. euh, euh, du coup euh, du ma ko du ma xam naa li ma la jege moo tax du ma ma gis yenn détails mm-hmm. yaa ngi dégg parce que dañu dañu wane benn image moo mm-hmm. xam ne da doon wax ni ba sax euh, taxaw nga ne leen dencal la dencal leen ma lii. Mhm. Euh, vous verrez que euh, effectivement coupe bi du ñëw Sénégal. Mhm. yaa ngi dégg mais dégg naa après aussi que 24 heures à l' taxaw nga bi nga demee Cameroun ba xool sur place situation bi ni mu demee. Mhm. gis nga ni effectivement que ni xaj na peut-être li nga waxoon da nga delluwaat ci ginnaaw parce que ci diggante bi dafa am yu bees ay éléments yu bees yoo xam ne moom nga gis. surtout le fait que tu sois sur niveau de du Cameroun gis nga ni xaj na peut-être li nga waxoon. au départ euh, euh, euh, mënatul nekk puisque naturellement nee nga léegi ni gars yi danañ jël coupe bi coupe Sénégal la jëm lan moo war qu'est-ce qui a été à l'origine c'est ça la question voilà a été à l'origine de de de de de cette démarcation là du tic au tac parce que un coup nga ne c'est même pas la peine jàpp leen li ma leen di wax convaincu à 100 pour cent que ni coupe bi ñëw Sénégal c'est impossible et puis 24 heures à l'avance nga wax say nit ni coupe bi Sénégal jëm lan moo waral changement boobu. Aliou Sow da nga question bu bu am solo. mais man du ma cuune de. voilà may ma sa café bokk. <laughs> am jox ko. dinaa ko posé nga non non non non c'est que euh, euh, question bi. question bi euh, posé nañ ma ko à la 2STV. aram aram euh, toog nee na ma diggante bi. Mhm. moo am lan moo changé. diggante voilà lan moo lan moo am. te mais Aliou Sow euh, xaw ma ndax at nga mais est-ce que est-ce que man j'ai dit que coupe bi dama ne Aliou Cissé fi mu yemoon dootu ko paaseti. fi mu mooy. moom mooy moom mooy final dem final. waaw xam nga bon loolu laa wax mais euh, ne coupe bi dem final ak gagner coupe c'est différent. waaw waaw loolu laa la wax dama ne Aliou Cissé fi mu toll 2019 fi mu toll nii. c'est fini dootu fa ñëwati xoolaatal kii bi dootu fa ñëwati. fi mu toll ci lamb mooy maanaam euh, waa mooy maanaam final bi mu ñëwoon. Mhm. dootu fa ñëwati. waaw Cissé jeexal na. voilà moom loolu la Cissé Aliou Cissé. no mi moo doon euh, que par exemple yow. ca 2019 il était finaliste. Mhm. Mhm. yóbbu na équipe bi ba final. man bi ñu jugee kaan boobu dama ñëw tax ba sax ma ne Aliou Cissé mii dootul. ñëwaat fii fi mu yem fii dootu amati. li mu am fii maanaam da koy dépassé mais dootu reculer wax ji la ñu comprendre kon Aliou bi mu ñëwee final man euh, man man li ma waxoon amul est-ce que comprendre nga bu baax li may wax non non léegi xam nga xam nga la ñuy jéem a def dañuy jéem a expliquer sénégalais après nga. voilà voilà Aliou Sow bu ñu wàccee rek non non attends xoolal Aliou Sow xam nga lan laa dama ne. image rek laa gis. waxuma coupe du ñëw dugg Sénégal. boo xalaatee kii bi waxuma loolu. néew ma coupe du dugg Sénégal. Mhm. coupe du ko non non dama ne. Aliou Cissé final la dem dem na final. waaw lii mu am nii li mu ñëw ba final dootul ñëwati final dootul ñëwati final kon léegi bi mu qualifié final nag man sama wax boobu aliw Cissé. dootul final Coupe d'Afrique. waaw. maanaam ci na muy doxalee bu ko soppiwul. final du dem wala non non non non non final dafa dem final. 2019 voilà. Euh, euh, a am. Aliou Cissé du dem final. mooy moom mooy moom mooy kaan bi kaan bi ñu def. mooy mooy dernière finale. non non maanaam eh, il veut dire man ci nu ma comprendre tey jii Aliou Sow yow dem nga ba finaal tey ma taxaw ne Aliou Sow bu subaa de du yegg final maanaam maanaam yow bu subaa. quart de finale nga yem wala demi finale waaye finale doo ko jot ndax say wax say say say sa fi nga mën a yegg yem nga fa ba pare te loolu daaw la woon voilà loolu maa ngi ko wax en deux mille dix neuf waaw de ma ne maa ngi sax sama ne deux mille vingt et un <laughs> boo xoolee équipe bi dama ne mille vingt et un waaw xanaa xanaa kon euh, euh, ko daggee dafa moom laa lay wax parce que parce que booy xoola ah, waaw la ngay comprendre <laughs> mooy mooy mooy boo xoolee nii je crois man xool naa ka. Ah, da nga ne Aliou euh, euh, mm-hmm. coupe d'Afrique du fi ñëw. ca dagg ba la ni ñu ko daggee ca dagg ba la loolu bi coupe boo xoolee interview ba mu jeex. musuma kaa wax. Mm-hmm. xam nga xam nga xam nga man. <coughs> non non gis nga man j'assume li ma wax. man li ma wax. dama koy assumer ba mu jeex ah, man xoolal rek lu kii man su ma juumee gis nga man su ma juumee damay ne dama juum man kiwuma ci loolu kon la nag euh, waa mooy loolu bon changé qu'est-ce qui a changé en voilà moo indi changement wax yi nga xam ne waxoon boo ñuy fii ci petit déj bi balaa ñuy dem mhm. dama taxaw ba sax am naa ci yaakaar yaakaar mhm. et puis voilà boobu euh, euh, mais bi nga waxoon man gisuma gisuma loolu loolu gisuma image bi waaw voilà. image bi après lañ ko gis. ko gis doo dégg waaw. li na man ma ne la nag am naa yaakaar. Ah. bi ma koy wax je me rappelle le ministre Ablaye Sow. ak Augustin Senghor. ñoom ñaar maa ngi tudd seen tur. Euh, bi ñuy dem ba avant ñuy dem Cannes c'est à euh, mooy jour bi ma defee émission bi. Mhm. Euh, ma dem dégg la le lendemain. ma dem ci benn cérémonie de sponsoring bu fédération sénégalaise de football. ma ñëw taaw Ablaye Sow ministre mu ñëw bu ci ma mu ne ma ah Gomis yu yaa ne bi day ñëw ma ne ko coupe bi day ñëw mu woo Augustin doo dégg nga xam bu may dégg Augustin ñëw mu woo Augustin Ablaye Sow Ablaye Sow mooy sama seede mu woo Augustin ne ko kaay Gomis de nee na coupe bi dañ koy jël diggante boobu qu'est-ce qu'il lan man ni ne woon que Aliou Cissé dootul ñëwati final. tey jii lan moo tax man ma ne la coupe bi la day ñëwaat. parce que euh, xam nga boo nekkee sportif loolu danga koy laaj sportif yi da ngay sentir gis nga gis nga coupe gis nga booy nekk champion. dañ koy sentir. loolu du question ay ay ay kii mais non loolu loolu boo yàggee ci mbir mi la. gis nga bi ñu eggee bi ñu demee euh, fële kii nu mu kii Euh, Bafoussam waaw Bafoussam bi ñu nee cëpp ñëw bi ñu duggee le premier match euh, Lyon yi xam nga c'était un match poussif dur ñu gagné 1-0 ñu gagné 1-0 ci diggante avant sunu but bi sunu but bi balaa muy penalty bi mooy penalty Sadio balaa muy dugg da ngeen di am na benn Mamadou Ndiaye bu TFM na génnee. Euh, vidéo bi. bi nga naan 1-0 la. voilà bi may toog nii ma waaw maa ngi toog nii maa ngi toog mm. ci tribune bi. Mm. ñoom ñëpp journaliste yi ñoom ñëpp tiit ñii di kaas ñii di kenn. Mm. may de xaar leen léegi but bi ñëw. est-ce que woon basang foofu di seet. yàlla bi ma tiim laaj leen sànni ay perta wala xool dama la koy wax Aliou Sow ngay laaj da ngay laaj journaliste maa ngi tudd seen tur Mamadou Ndiaye <laughs> di tudd journaliste yi ne ko yi ma wëroon. ñoom ñëpp tiit man na leen bit bi lé ma ne ah. bit baa ngi ñëw bit baa ngi ñëw bi mu jugee ñoom ñëpp dañoo tëb sama kaw. xam-xam dama ko sentir. ñu ñëw deuxième match. Guinée xaw ñoo sonal premier mi-temps rappelé leen premier mi-temps boobu. Mhm. ma ne day métti métti métti mais Guinée mi du ñu dóor. ñu ne ma Gomis premier euh, premier mi-temps bi ñun xaw nañoo dee. ma ne leen Guinée mii ah jaxa de waaye de ñun defet bii duñ ko am duñu am defet ñu ñëw troisième match ba gars yi di wax eh buñ ñu dóoree dañuy éliminer éliminer ma ne leen Pape moo dudd ma bàyyi ma kii Pape Lamine ak ñoom ñëpp journaliste man ma ne leen jour boobu laa wax ci hôtel journaliste yi ma journaliste yëpp taxaw ma ne leen bu leen tiit bu leen jaaxle on sera premier de notre poule et on va gagner la CAN ñu ne ma mujjeen yow looy wax ni mais ñoom ñoo yegg coach layam layam gi nekkoon avant avant ñuy qualifier. waaw loolu la lenn kii Bakary Cissé bi nga xam ne c'est lui le plus proche de Sadio Mané Bakary Cissé ñëw ba ci man ne ma ma ne ko Bakary dama lay wax teg bind ko ci bind ko te bu te dama bëgg bu affaire bi jeexee na ko wax ni ma la ko waxee su dee juum naa nga ne Gomis waxul dëgg bu dee wax naa dëgg nag nga ne Gomis wax na dëgg. ma ne ko coupe bi dañuy gagné coupe bi. waaw. Euh, pourquoi pourquoi euh, euh, comment dire Aliou Cissé bi muy def conférence de presse tourné non franchement euh, euh, bon très gentiment je crois que c'est un garçon très gentil. Mm-hmm. Italie Gomis Coupe d'Afrique. champion, d'Afrique mais mais foofu ban tontu nga xalaat ni moom la waroon nekk di tontu moment boobu. man dama jàpp ne parce que Aliou. Euh, maanaam euh, li ngay wax nii euh, bi ñu ñëwee ci kaan bi première chose bi gën a bi njëkk a jaaxal ñëpp ci Aliou pour par rapport à son changement Aliou était sur la défensive depuis qu'il a été kii waaw booy conférence de presse boo waxee il est il est sur la défensive booy n'est pas ouvert mhm. Aliou si était comme ça mais Aliou Cissé Euh, première conférence de presse am à l'hôtel de kii bi ñu toogee il dit que euh, je salue la presse africaine et je salue la presse de mon pays plus particulièrement mon ami Cheikh Tidiane Gomis mm -hmm. il le dit comme ça ñëpp tourné xool bon yenn journalistes yi nee nañ eh Gomis kii da lay sa kii. da lay dóor waaw da jéem a dóor. xam na ne que ñëw nga nangam. Aliou Cissé jugee ci kiyam foofu ñëw fekk ma man ma taw ma toog mu ngi may dégg xam naa mu ngi may dégg même bu ma déggul dina am ñu kaar mu ñëw fekk ma ba fi ma toog mu ñëw bu ci man na ma Cheikh Tidiane si waaw yow sama waay nga mais nga nekk ci plateau yi rek di may attaqué te pourtant man ak yow ay waay lañu. ndeysaan ma ne ko. nga tontu ko la <clears throat> waaw ma ne ko Aliou. Aliou mii tamit la bëggul jàmm tey. <laughs> war a xam. waaw waaw waaw ma ne ko Aliou ne t'inquiète pas loolu passé na. Mhm. ñu ngi nekk ci benn euh, ci loo xam ne dégg nga lii lii lu am solo la nañu concentré wu ci lii après les comptes après après ñu réglé mu fooree jour boobu la def benn affaire boo xam ne Françoise Seck. Euh, Françoise bu RTS ak gars yi yëpp dañoo gën a jaaxle ci loolu xam nga lan la def quest que Aliou fait bi ñuy demandé olof xam nga conférence de presse euh, doo fa euh, français la entraîneur bi di wax benn yoon bu wàccee jeex na day dem mais si Cissé wàcc ñëw génn gars yi ne ko olof olof mu dem ba ci biti man maa ngi woon ci biir saal bi mu ne waaw xaar leen ba Cheikh Tidiane Gomis ñëw ñu soog a def olof moom de boo ko wax. ma ñëw ba saa ñëw ba saa mu ne ah voilà yaa ngi nii ate ñëwal ce qui veut dire euh, foofu il commence à changer conférence de presse Aliou Cissé day ñëw euh, wax ak nit ñi day maanaam communication bi ça passé Aliou Cissé li mu doon bañ ci àddunaam jàkkaarloog journaliste sénégalais yi mais bii dafa ñëw ci hôtel euh, kii joueurs yi hôtel journaliste yi. dañ ko yedd en fait. conférence de presse jàkkaarloog ñun. mu ne yaa amul daa wax leen doo leen bëgg. mais est-ce mooy garabam te nit motul foo nga am ñoo xam ne. non c'est que c'est que c'est que c'est euh, que bon man li ma jàpp mooy xam nga lan moo indi déclic bi ci Aliou fan la Aliou Cissé xam ne que moom mii euh, attitude yi mu yoroon du ko mener à rien. du ko yóbbu man attitude yooyu moo taxoon ni mu doon doxee la moo taxoon ma ne Aliou Cissé nii fi mu yem fii dootu fi yemati. parce que Aliou Cissé dafa daan ñëw Aliou Cissé contre Eswatini xaw ma ne yéen a ngi fàttali match boobu. match boobu. à Thiès waaw à mhm. match boobu lañ ko convoqué ci bureau Augustin Senghor. match boobu gis nga match boobu euh, su après match boobu bu Aliou Cissé euh, jéemuloon a changé rek du baax du baax ci moom match boobu la ko Augustin woo dans son bureau ne ko eh équipe nationale bii. sénégal yee ko moom yi ñoo moom équipe nationale bii ku nekk am na ci droit yow nag yow yaay jël les dernières décisions yaay wax kon nag yow nag xoolaatal bu baax foofu la ñu gisee Aliou Cissé commencé di changer. il y a un bi foofu la contre Eswatini. Hmm. match bu bon yooyu ñëpp di koy attaqué. match boobu mooy déclic bi mooy woo bi ko Augustin woo. dans son bureau Augustin moo ma ko wax man. mais finalement Aliou Cissé est un grand entraîneur. non pas encore. ok pas encore xam nga euh, gis nga boo gagné coupe day làq lu bare Aliou Sow gis nga coupe xam nga tey jii ku gagné coupe euh, lan la résultat lañ lay laaj non xam nga am nga résultat. Ah, kenn du am lu mu wax mais. mais regardu observateur dëgg. Mmh. regard durant toute la compétition. yaa a eu des failles. yàlla piccé doom lañ demee waaw y a eu de failles yoo xam ne tey jii yaay am na ay coaching gagnant yu mu def mais am na ay coaching yoo xam ne c'était pas bon. Mm-hmm. booy xoolaat nii. mais un grand entraîneur mun na am coaching gagnant yu baax ak coaching gagnant yu bon. un grand entraîneur. la mooy différence pourquoi tu dis que ni. pour gàttal rek je ne sais pas. bëgguma bëgguma bëgguma ci leneen. la la la moom yaay invité bi mooy rubrique. parce parce que xam nga aussi c'est moom. c'est vraiment non c'est vraiment important les questions nga xam ne yaa euh, euh, lan moo la la lan moo war a mën a tax yow tey jii nii nga ne Aliou Cissé c'est pas un grand entraîneur et puis lan un grand entraîneur nan lay lan lay nuru. xam nga te Aliou Cissé amu ko moom. xam nga un grand entraîneur. c' est celui bi nga xam ne moom bu ñëwee euh, maanaam équipe am équipe am day maîtriser équipe am déjà un grand entraîneur. c' est celui qui maîtrise son équipe. son groupe il a son groupe il connaît ci nekk ban rôle nga war a jouer dans l' ci match bu amee. comprendre mais il est communément dit que Aliou Cissé booy yi moo leen defar moo leen màggal moo leen toppatoo depuis un certain nombre de temps moom moo leen xam na leen maîtriser na leen xam nga kan moo xam équipe bi mooy c'est quelqu'un bi nga xam ne man moom laa gën a di critiquer que Aliou Cissé hmm. mooy Maya Sène c'est lui moom moo defar équipe en 2008 l'équipe était ay junior de Gana Sadio Mané Kara ñoom ñëpp ay Cheikhou Kouyaté ñooy ay junior lañu mais ñooñu kese du ñu kii y a eu un grand apport. non doo am na am na ñu ci greffé. mais ci loolu. coach euh, mm-hmm. euh, euh, xam nga dafa am kaas. xaaral ma kii dégg nga xam nga am na foo xam ne équipe bi bu la yow boo gis nga beneen déclic déclic maa ngi koy wax fii te démb bi may waxtaan ak beneen joueur. mu ngi ma koy confirmer ma ne ko man xamoon naa ko mhm. mooy xam nga ban moment bi ñu joué trois matchs yi ba pare Sénégal fii. ñun ñu am information yi fii Sénégal wax yi gars yi di naan ah équipe bi du dem fenn ñëpp découragé. trois premiers matchs yi ce sont les joueurs joueurs yi cadres yi ñoo gisee toog waxtaan ne gars yi <laughs> caaxaan faaxa affaire bi affaire bi xam nga lan la léegi xam nga lan la lii ñun la nañ jël affaire bi en main jury ils ont ils ont pris l'affaire en main. non mais il n'est pas pour grand chose man je le dis je le xoolal xoolal xoolal je ne sais xam nga man li may wax. il faut qu'on sache waaw. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga le football. xam nga le football c'est un jeu collectif. Mm-hmm. mais kii teg stratégie di orienté joueurs yi di changer def ay changement. d' accord xam nga d' accord mais boo seetloo Aliou Sow ci biir gisoo ñi nga xam ne mooy ancien joueur yi mu bokkaloon. Euh, Euh, ni ñu koy waxatee génération yëpp dañoo ñëw épaulé ko jàppale ko pour jéem a ko si da ngay gis ni ñoom ñëpp ba ñu booloowee ci lañ indi li nga xam ne moom moo di coupe bi mm-hmm. donc mbooloo moom mooy doole rek te nit ki da ngay am euh, ku lay sottilante xalaat xam nga xam nga Aliou Sow dafa am benn xaaral dooma ñëw ci yow Aliou Sow am na benn moment boo xam ne am na benn boo xam ne mm-hmm. euh, dégg nga ay ay à chaque fois à chaque fois da ngay xool dans le match dans le match le Sénégal day buté ci adversaire am day buté ci adversaire am moment boobu le Sénégal joué Aliou Sow dama lay wax benn affaire da ngay laaj sénégalais sénégalais bu dee muy yow muy keneen kaan bi commencement ba fin sénégalais yëpp chaque match sénégalais yi dañuy tiit. ah waaw. oui mais mais est un grand entraîneur lan la un grand entraîneur di am te Aliou Cissé amu ko. un grand entraîneur. tu m'as dit quand même que Aliou Cissé n'est pas un grand entraîneur. non c'est pas un grand entraîneur. lan la bon. lan la lan la am non non non non attends non attends non attends non des gens qui ont gagné des coupes mais ils ne sont pas des grands du ay grands entraîneurs. am na ñoo xam ne tey jii parce que euh, oh, damay dans le kii euh, euh, dans l'organisation de ton jeu ci sa biir jeu yow si yow yow yow sa jëmu bopp yow dégg Euh, yow yaay imposer ma jox la benn exemple rek ci entraîneur un grand entraîneur mooy imposer maanaam philosophie de jeu à l'adversaire adversaire bi du ko du jamais bu ko imposer da koy dindi Aliou Cissé capable loolu non non Aliou Cissé Aliou capable de faire non, ça non il ne peut euh, benn affaire dafa am non il est capable équation xam nga lan la non attends équation tactique laa lay wax dama ne équation tactique mu résoudre ko mënu ko. mënu ko mënu ko. et ça ñu ngi dem la finale. mënu ko ok équation tactique bi ñu ko tegal la finale. mais résoudre ko il a fallu que ñu dem euh, kii. il voulait gagner le match dans le match il voulait gagner la euh, kii dans le match mais noonu gagné wu ko. xam moo ko dese. waaw parce que léegi foofu euh, foofu adversaire bi adversaire bi joué benn attaquant la am mooy Salah. benn attaquant la woo moom la Égypte am mooy Salah mu andil ko bloc bas tegal ko euh, kii bloc bas bloc bas de la ko andil la ko tegal résoudre ko li man li ma koy reproché ba léegi mooy que ñu tegal ko équation tactique te résoudre ko man loolu laa koy euh, te ba léegi man nii man man man man man rassuré wu ma mais non góorgóorlu na non non non attends attends mhm. ay jeunes ñi nga xam ne ñu ngi ci def ji bay seen waar am talent toog foofu yàgg fa mayuñ leen opportunité pour ñu dugg ci terrain bi de xam loolu yëpp yàgg nañ ko fi kaas mhm. mais dañu gis ay tête yu bees bi ñuy waaj a dem euh, ci ci ci final bi mhm. tête yu bees ay ñoom ñu bari man sax xameewu ma leen woon mu leer na ni ñooñu ñu ngi woon foofu làkkatu def liggéey bu am solo te amaana sax mën nañ nit ci ñi ñu ci génnee la ñu bokk comprendre nga fi may li ma li ma wax moo moo moo waral ma ne la foofu Aliou Cissé góorgóor na ndax ndiiraan bi ñu ko fi noon ndiiraan xale yi di ko toppee gauche yow nga toppee ko droite keneen ku mel ni yow di ko toppee feneen bu bu déggul aussi ñu laaj ko ko parce que man leen rek laa gis ma yeggali si kii li li Fatima wax mhm. euh, man pour man un grand cuisinier un grand cuisinier mooy mooy ki nga xam ne moom mooy concocter euh, euh, les bons produits légumes yu baax yi. Mm-hmm. Euh, sel kii yi ni ñu koy wax ne lépp lu kii ci wàllum. ñoom seen rek ah, ah, ñoom seen ñoom seen légumes yeeg ñoom seen jaxase ko ah def mbir mi togg ko mm-hmm. joxe ko mu ñëpp xam ni mm-hmm. lii dafa neex. mu tàmm di ko def nag. <laughs> merci. merci yow nag est-ce que dafay tàllus. est-ce que yow nag gis nga yow. wax nga lu am sol da ngay commencé Aliou fu mu commencé ba ñëw ba tey jii nii. Mhm. Aliou ba mu ñëw nii am na benn match boo xam ne même man sax nee naa ko bravo. Mhm. ci coaching bi. Mhm. mais match boobu en réalité loolu xam nga lu tax ma wax ko bravo c'est que Aliou foofu tam naa rien compris. li tax man ma ne ko bravo. xam nga dama lay wax benn affaire boo xam ne journaliste yi fa nekkoon xam nga loolu moo tax am na journaliste yoo xam ne dañoo ñëw après yéeguñu li fa amoon. Euh, gis nga bi premier match bi may wax. Mhm. gis nga bi kii bi amee. Euh, bi ñu defee saajo homme du match mu ñëw conférence de saajo maa Mané m'a dit devant tous les journalistes devant ñëpp toog euh, presse national internationale mu ne ma maa ngi lay ñaan lenn devant fii maa ngi lay ñaan lenn critique yi ci kaan bi bàyyi ka bàyyi critique yi. Mm-hmm. ba affaire yi jeex. d'accord motiver ñi. ñëpp a ngi toog mu nekk Aliou Sow euh, safu safu loxo. donc Aliou Aliou euh, kon euh, mun nañ ne rek kan bi dañ ko abee ci yàlla piccé <laughs> ndaxte li nga xam ne ni moom moo di. kaan yi ba yàlla piccé gars yi góorgóorlu nañ nag kaan bi xam nga xam nga kaan bi. Mhm. kaan bi affaire demande sociale la woon. Mhm. demande sociale la woon. mais taxul de. d'accord ah, mais non mais cette fois-ci. mais cette fois-ci bu subaa ngeen eggale déglu leen. waaw yéen ñaar bu subaa ngeen eggale. coach tàggool <laughs> mbokk téléspectateur yi coach <laughs> tàggatool. waaw waaw. bu loxaat tàggatool. Ah. <laughs> gaaw balaa ma lay dagg. waaw man sama jigéen man sama tàggu. ah moo fii ba tey de. ne ko bàyyiwul ba tey bàyyiwul ba tey de loxo mu ngi ci soox <laughs> fu mu ko tegoon ba tey war naa ñëw nag waaw jëkkëram sax euh, bokk na ci cinquante millions yi jox waaye de cinquante millions yooyu yëpp da koy may nañ xam lu la koy maye nañ jàpp peut-être dinañ am ci cinq millions yi bu ko jëlee d'accord na <laughs> waaw Cheikh Sèye waaw xaalis bi yëpp da koy maye lépp lay joxe waaw na may si waa petit déj ah, mhm. ah, am ah, na voilà naan ko na ko waaw waaw Cheikh Sèye non lii damage moo ko def mais Cheikh Seck na indi wàllam waaw Cheikh Sèye d'accord incha allah euh, Cheikh Sène ñoo ngi xaar suñu wàll rek ci cinquante millions yi mu nekk loo xam ne ndàmpaay lu duun la ku def lu rëy am lu rëy ki nga xam ne moom moo di son excellence monsieur le président Macky Sall euh, jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde indi fi ni coupe bi on va marquer une pause ñu dem ñëwaat euh, ci suñu plateau sur la voie des sans